deux buñ ci àggee ñu ne dañoo yokkaat dañoo yokkaat noo yokkaat yaakaar naa ne lu métti métti da dégg coow ndax nun wax dëgg yàlla muñ nañ ba sunu mënu jeex na ndax nit bu fekkee ne dafa tëdd di jaamu yàlla te nun xamuñu lu du jaamu yàlla ak liggéey di wéy ci ndigal fa sunu yéene def lenn loo xam ne lu neexul sëriñ bi la ci dëkk bi nu fa yéene di wéy ci taalibe ak di jaamu yàlla képp ci loon fas yéene di daan suñu doole amuñu nag lu du transport transport ñu ko taxawale métti na ba fu métti di yem ku la ko mën a wax mooy chauffeur bi moom sonn nañ deux bi moom damaa yaakaar ne état de urgence bi def ak cour bi waaye yaakaar naa transport bokk ci sunu yaakaar yaakaar na ne transport bokk moom deux souliers bi pour mu jàllaat yaakaar na ne nun transport bokk ci danoo yaakaar ne couvre-feu bi ak état d'urgence bi waaye transport moom yaakaar na ne bokk te noo ngi am yaakaar ne transport du ci bokk moom ko ñaani nanu dimbali ne bot bu ci transport bokk ndax njaboot gi sonn nañ te amatul fu ñu jëm boo xoolee ñi ngi fi gis ñëpp koo fi gis fi ne ñëpp nit ñi sëfër sëpp seen na ndax bu ñuy xëy dañuy dox te tey bu ñoon départ leen suba duñ amuñu pën oto yi amuñu pënu amuñu ay bëtër ndax fi ne koo ci gis ne xam ne junni bu mu nar a def ci oto da koy xëy jox ak njabootam ñu lekk ko du ko def ci oto naan damay sart sama bëtër mënut a nekk suñ première jafe-jafe mooy bëtër bëtër ak pënu fi ne moom leen njëkk ci oto yi pour oto yi départ bu ko mayee nu dël de ndax ñàkk pexe ndax dañoo wax ne gumba moom boo ko joxee wet ne ko kaay ma umat lu sëñ ca bañ waaye nag bu nu amoon lu nu a dana romb jurbel waaye nu amoon lu nu pexe bu nu mayee ba may na réseau yëpp ñu ne ñu ne Thiès bokku ci Touba bokku ci moo ne kaay Dakar ko ëppale Dakar ëppale kaa foofu bu dee wàllu kaa dong na Dakar ko ëppale Touba nag li mu am ci kaa ne néew muy réseau Diourbel mooy Touba dafa ëpp mbooloo ci réseau yi ci des boo doon seetlee ñaari junni nga jox ko borom borom ñaar téeméer nit boo yaakaar naa boo boo boo joxe borom borom borom ñaar fukki nit borom ñaar téeméer nit mooy gën a sonn Touba dafa ëpp mbooloo fop régions yi ci des ba fi ne tey nun benn ñu diggante ne dana dimbali sa force su gisagul ñaari dërëm ndimbal loolu lu ko tee ñëw naa nga wax état ndimbali na ñëw lu mu tuuti tuuti na ñëw nun ñi wax dañ koy gedd gedduñu ko tey ci leen ko gën a bëgg na ñëw ndimbali na ñëw waaw. transport bi ci la bokk moom du ma ko nangu transport da nan nu bàyyi nu daw la deux dina yokkal moom du ma ko nangu duma ko ñaan duma ko ndax man sans absurde dama wax ne loo bëggul bu ko saw làmmiñ laal kon du ma wax ne la deux moom jàll ko moom duñ ko nangu tey ko nan nu may la deux nu daw danga koy ñaan lan sañ nan nu ñaan nan nu may nu daw la deux man nag lu ma bëgg duma ko wax te bëgguma ma nu jàll la deux